di bu baax a baax di euh, kontaan ci teew fii di leen di ñaanal atum jàmm ndax nag euh, ñu ngi door euh, ci fii ay waxtu rek at bu bees boo xamante ne ni yaakaar yi bëri na ku ci nekk am nga yéene nag loo xamante ne mi ngi sa biir xol ñuy ñaanal ñëpp mu nekk loo xamante ne rek lu baax lay doon te loo xamante ne également day jik Sénégal xibaar rek la ñuy waxtaanee ndax xam ngeen ko tàmm ko it heure bi bu ko defee ñu gën a yaatal ci kanam tuuti 20 président Macky daal di leen jébbal li nga xamante ne mooy discours bi nga xamante ni dina ko jagleel askan bi leneen itam lu ci topp mu di euh, conférence de presse boo xam ni dana ko def également ak ay taskatu xibaar yoo xamante ni tànn na leen suñuy ndaw également euh, bokk nañ ca du ñàkk ci kanam euh, daa ngeen ko seetaan ci guddi gi waaye loolu ci kanam lay doon léegi léegi ñun dañuy waxtaanee la nga xamante ne rek mooy lii consumériste yi ñi nga xamante ne ñooy woy jëfandikoo yi li ñuy am yaakaar ne daañu fës ci discours waaye li nga xamante it ñu ngi nga xamante ne euh, mooy at bu bees bi ñu jëm ñuy ànd ak ma soxna kan ci euh, plateau bi tey jiite SOS consommateur maître dalal jàmm ci plateau bi. jërëjëf maa ngi leen di sant invitation bi di nuyu seen euh, di soxna si fekk fii sa di nuyu seen téléspectateurs yi di leen souhaiter mes meilleurs vœux Euh, de santé d'abord parce que c'est le loolu loolu ëpp solo si nit wér bi ñaanal leen wér gudd fan ñaanal leen aussi jàmm parce que jàmm bi am na importance euh, di wax ne euh, at bi di ñëw nañu ñaan yàlla mu fekk mu dajeek feebar bi jóge fii génn fi parce que feebar bi tiital na nit ñi Euh, di ñaan yàlla aussi yàlla def jàmm ci réew mi def ci koom-koom euh, parce que Sénégal euh, loolu lañ gën a soxla. dañu ñëwaat euh, si yow maître si kanam ni ma ko waxee sànq am na yeneen également ay fait yu marqué askan bi euh, ci at bi moo xam ci politique la moo xam ci euh, société la ni ngeen ko gisee ci subaak léegi rédaction bi am ci taxawaay ci fànn bu nekk daañ ci ñëw waaye fii dañuy waxtaan yenn ci ay ponk dinañ ci ànd également ak Binta Diallo Binta Mayelele bu baax Arame euh, ture di la ndokkale ci at mi nga xamante ni at bu doy waar la woon mm-hmm. mi ngi waaj a jeex ñuy ñaan 2021 euh, bañ a mel ni 2020 euh, maître wax na ko léegi maa ngi koy nuyu moom itam di nuyu les téléspectateurs alors tey exceptionnellement dañuy ànd ak Binta ndax loolu moom dina dina dina xam naa dina am solo ndax Binta ni ñu koy ni ko daan béggee tey ñu am occasion mu defal ñu ko ñu seetaan putain jarul ree tey journal bi daal man biram moo la ko yan nangul rek. <laughs> yàgg bambi ak raawul waaye rek nga defal ñu ko ci at bu bees yi mu nekk également une beneen don boo xamante nii moom la ñu indi ñu bàyyi la nga euh, jagleel ñu li nga xamante ne moo gën a fës ci euh, bés bi. ñu li ci gën a fës euh, Aram Touré mooy xibaar bu tiis bile di génn ñëpp àdduna Serigne Abass Mbacké di xalif Daaru Musti tey ji ci suba la ko def moom nag dafa feebaroon ñu évacué ko woon fii ci Ndakaaru Serigne Abass daanaka bu mu delloo sax daaw. Euh, musti yàggul euh, ba tey ji ci suba kon euh, la dem wuy ju boromam ñuy jàll waa daaru musti yépp leneen li nga xamante ne ñi ngi koy xaar tey ji si ngoon bu 20 jotee mooy li ñuy wax le traditionnel discours à la nation du président de la république ci kanam tuuti lay doon ca palais de la république bu ci jógee nu mu ko faral di def dina jàkkaarloo ak taskatu xibaar yi laata loolu ana lan la askan wi di xaar ci discours à la nation bu président de la république sénégalais yi nga xam xam ne taataan nañ leen suñu micro euh, ñi ngi koy xaar ñu ni ci pàcc yu bëri bokk na ca ñu ni licence de pêche yi naka noonu euh, wàllu ngóor jigéen gu ñuy laam-laamee euh, fii ci Sénégal rawatina njëg yi nga xamante ne métti na lool ci askan wi dañ ciy déglu kàddu yi ci nga xamante ne kii ko ma mooy a Ndiaye ak Thierno Laurent Mendy réglementé réglé réglé woon nañ ko ba Ndiaga Ndiaye ay 18 places la daan jël affaire yooyu mais dañoo jékki-jékki rek affaire yi commencé waat di feesaat yooyu tam bokk na ci li koy indiwaat. fees dell ñëppay taxaw tànqaloo mooy loolu. gars yi ko moom wax dëgg yàlla xam naa ne nag jafe-jafe àdduna nag moo tax gars yi bàyyi ko dem wuti ji leneen quoi waaw mais gars yi xeexatuñ dara de. gën a yokk jéego yi pour pour mu jóge fi moom il faut gars yi taxaw ci bu baax a baax sax. waaw il faut ku ci nekk ji ci nekk rek jël sa sa responsabilité xam ni carrément yow yaa mën a sauver sa bopp. information bi ma dégg démb muy Touba dañ fa téye benn góor jigéen foofu noonu mu bënn ñaari noppi xaw ma loolu dafa rafetul ci deru Sénégal. li ci liñ ci liñ ci mën a taxawee mooy comme par exemple tey jii kuñ ci gis ngay def lu mel noonu ñu téye la wan sa moroom loo xamante ni ëllëgee dina xam ne kii kat fii la jaar comme man war ma fi jaar. mu wàññil ñu ndugg yi seer na ceeb bi seer na diwlin ji na gaas ñu daal bu ñu sañoon rek Macky moom mu wàññil ñu ndax sonn nañ torop dund bi looloo ñu intéressé. ñu ko war a contrôler daal mais ñun liñ koy jëndee wax dëgg yàlla seer na trop te duñ ko mën a bañ a jënd ndax suñu njaboot yee tax. am géej gi nga xam ne dañu signé ay bato yoo xam ne ñu ngi fii di ñëw xam nga ñu ngi napp ci géej gi di mbaal ñu ngi yàq géej gi te ñu ñun amuñu leneen lu jël géej gi xanaa mu jàpp ñu ci côté boobu. leneen loo xamante ni dañu koy waxtaanee saa su ne mooy point du jour coronavirus ministère de la santé et de l' sociale tey jii ci 31 décembre bi daal dina koy fësal Sénégal amatina téeméer ak juróom fukk ak juróom ñi nga xam ne yor nañu jàngoro ji euh, téeméer ak fukk ak ñeent am ñoom dañ ko am ci wàllu euh, transmission communautaire ministère moom tam daal dinay fësal ne am na juróom fukk ak ñett ñoo xamante ni ci feeb ci malade euh, daal dinañ leen test testé euh, négatif ba jamono yi war nañoo génn loppitaan juróom-ñetti nit nag tey jii ñoo faatu muy gulet euh, boo jàppee euh, lépp mi ngi toll ci ñeenti téeméer ak fukki nit yoo xamante ne génn nañu àdduna bi feebar bi ganisee ci Sénégal ki ko wax mooy euh, directeur de la prévention docteur Mamadou Ndiaye docteur Marie Xemes Ndiaye moom nag euh, mi ngi woo sénégalais yi ñu daal di respecter li ñuy wax les mesures barrières bu ko defee ñu ni dinañ jàppale wàkkar docteur naka noonu ndax médecins yi sonn nañu lool ci comportement sénégalais yi nga xamante ni ñoom rek ñoo mun a tax mbas mi deltu ginnaaw da ci euh, mu ni nag moom docteur Xemes que li ñuy wax ne coppite am na ci virus bi egg seegul ci Sénégal euh, moom euh, docteur Xemes euh, mi ngi jàpp ne sénégalais yi nag li limiw ñi nga xamante ne ñi ngi am feebar bi mi ngay gën di yokku te jii moo nekkoon ganu info du matin ci micro Mamadou Fall ak Thierno Laurent Mendy. personnel socio parce que même bi ñu waxee dañoo allégé kenn demul tëddi kenn demul congé période première vague bi am na ñoo xam ne dinañ toog lu toll fukki fan ak juróom du ñu gis seen njaboot. xam nga même personnel de santé ba bu personnel socio-sanitaire ba bu fekkee moom dafa am njàkkare mais moom xelam dina dem ba xañ na la mu mënoon joxe à 100 pour cent xëy na dootul mën a joxe sax 50 pour cent donc damay wax ne rek c'est un tout ñun ñëpp nañu àndandoo xam ne li ci biir centre de traitement yi tar na trop li ci biir structure de santé yi tar na trop parce que même infirmier bi nekk ci poste de santé am tey dara waxul ne ñii ñëw sur 20 personnes est-ce que 10 yi ànd ak doomu jàngoro bi parce que def nañ enquête de surveillance gis nañ ne fii ci Dakar 22 pour cent lañ ci am mooy ne képp kuy dund tey ci dakaar ci juróomi nit am na kenn ku ko ci am. sur le niveau national mooy 19 pour cent ñu ngi xool actuellement ci région bu nekk naka la te foog nañu fii une semaine laboratoire dinañu ñu ko jox. mutant yi xëy na waxuñu si gis nga ne ci yeneen dëkk yi virus baa ngi changé fii Sénégal laboratoire yi présenté ñun altine bi passé ni gisaguñ ko def nañ ñu tolloo 400 séquençage muy Institut Pasteur muy IRSF. boo gisee ñoom ñu koy def mooy laboratoire yi bëri doole yi nga xamante ne dañu lëkkaloo ak yeneen réew ñu ngi koy xool ñu ngi koy surveiller man daal li mu wax mooy euh, ci dëkk bi lañ dëkk nañu gëm suñu bopp gëm système de santé bi vraiment foog naa bu ñu ko defee ak àndandoo di dóorandoo di yëkkateendoo di tegandoo man yaakaar naa ne virus bi dina génn suñu dëkk mm-hmm. wala nga xamante ne dina wàññeek dañuy ñëw léegi ci communiqué bi nga xam ni préfet bu ndakaaru génne na ko sànq ci ngoon di fàttali askan wi euh, tere yi rek euh, ndax euh, jamonoy Covid 19 la ñu nekk la daa am ca place de l' indépendance naka noonu ci boulevard général dégol wala boog ci porte du millénaire ci 31 décembre bi bu minuit bi jotee ñu ne dootul am mbas mee ko waral restaurant yi itam naka noonu fi ñuy jaayee limonade ak ñu koy wax baar yeeg débit de boisson yi kon minuit lay tëj te nee nañu nañu respecter les mesures barrières dancing dancing ak salle spectacle yi ñu ni dañu koo tere kon ba jëmi jamono marché bi nag dem nañ fa tey ji ci suba xool euh, pétard yi fan la toll naka noonu yeneen artifice yi euh, daanaka produit yi ñu ne bari na ci marché bi waaye kiliyaan ñi nee nañu ñëwuñu li ñi nga xam ne ñooy jaaykat yi dugal seen xaalis si wàllu wi sonn nañu lool te am na nañu itam ñu ne njàqare ndax nag njëg yi bari na fa waaye euh, seer na lool loolu mooy gis-gisu Maimouna mën a njaay ak Mendy Fall mi ngi lal taabalam ci boobaak léegi am na juróom benn at feet yi buñ daan ñëw fin d'année bi daf daan gis boppam ci liggéey bi ndax kat daf daan jaay lu bari tey ji mu mel ni coronavirus soppi na lu bari. ñaay mi moom fi mu toll mi ngi nii moom lépp tekk la def waaw dëgg yàlla ñu ngi jënd bagage wante gisagul client de moom am na tuuti changement nag parce que feebar bi wàññi na ci lu bari nag. Pape Sarr moom it beneen jaaykat la coono yi nu mel. lay jànkonteel fu mu toll. par rapport ak niñ ko doon jaayee nag ndax ak ak problème mbas mi nii daa tax njënd mi ñun dañ ciy ragal quoi par rapport ak nit ñi ni ko daan jëndee dëkk bi amul xaalis. jënd nañ moom li daan jënd jënd nañ ko mais jënd nañ li ñu daan jënd mais comme nit ñi nin nin ka daan ñëwee di ko jënd gën sewuñu ko noonu par rapport ay le côté le 28 29. jaaykat bi bu sañoon ñu xoolaat dogal yi nga xam ne jël nañu ko ngir ñoom ñu mën a jaay seen produit yi. feebar bi rassemblement bi dañ koy tere mais taal pétale tamit ku nekk mën nga rester sa kër nga taal sa pétale loolu wàññewul dara rassemblement yi ni ñu ko doon loolu loolu moom mën na bañ a am mais taal pétale moom jotewutoo rassemblement dara ku nekk mën nga toog sa kër nga xool say doom. ay pétard ay feu d'artifice yoo xam ni tànn sa bu la neex la boo xoolee béréb bi nga gis ni lu bari mi ngi fi lamb situation bi di wane ni mbas mi. laal na leen bu baax a baax. Arama Touré kon dañu koy yemale fii rek yàggale ko ci yeneen i fànn. jërëjëf Binta Diallo ci xibaar yi am na am na solo ñu daal di dellu si ni ko waxee sànq ci suñu gan euh, ma Massokhna Kane mi nga xamante ne moo jiite SOS euh, consommateur euh, maître lii ay ponk la rek yu ñu tànn. Mm-hmm. peut ci ci ci at bi am na lu ñenn ñi bàyyi xel moo xam sur le plan social sanitaire ak yeneen i fànn mais yow boo doon def tey ab xayma wala natt ci li nga xamante ne noonu nga gisee atum 2020 bi naka lay tëddee. waaw oh, d' abord damay commencer masawu sénégalais yi ci épreuve yi nga xam ne moom la ñu yàlla teg actuellement muy mbas mi muy yeneen i problème aussi parce que dañ jóge ci euh, ay inondation am ay problème yu bare mbas bi ñëw gën ko yokk euh, nit ñi nekk ci ay jafe-jafe yu bare mais comme euh, sénégalais dafa gëm yàlla lu bare dañ koy mën a muñ mais yëf yi te ki nga xam ne moo war a yor solution mooy état état nag taxawaayam euh, niñ ko gisee euh, dalul xel dalul xel ci fànn yu bare euh, damay commencer d'abord ci li nga xam moo ëpp importance ci nit muy santé après après santé mën nañ ni des denrées de première nécessité maanaam dund bi bu ñu ne dund bi dañ ci boole ndox boole ci lépp donc kooku aussi y beaucoup de problèmes nga jóge ci nga ne éducation éducation problème yi bare na bare waaye boo xam ne bi e c'est toujours les mêmes revendications gis nga syndicats yi temps yëpp ñu ngi tàngal et sur plusieurs points ils ont raison boo jóge ci affaire éducation yaa ngi ci affaire sécurité sécurité c'est un gros problème aussi ensuite affaire habitat boo nee habitat nga ne loyer yeneen euh, problème yi bare la ba nga xam ne te li ñu gis fondamentalement mooy ñaari yëf benn bi mooy xaalis bi ñuy am ci Sénégal ñu koy natt di ko def kii budget bi li muy important yëpp y a un problème d'arbitrage ci budget yi ci naka la ñuy utiliser xaalis bi je donne un exemple mooy affaire terre wala affaire euh, kii yooyu bu ñu lay ay mille milliards wala ñuy tabax ay stade loolu c'est bien ay tabax ay stade c'est bien tabax ay arena tabax ay centre culturel yooyu yëpp c'est très bien mais dafa am lu ko priorité parce que man bu ma gisee par exemple pour donner un exemple ñu ne arena tabax arena pour trente cinq ou trente six milliards euh, boo demee ci arène nationale aussi c'est la même chose euh, plus de trente milliards du dëgg yooyu boo ko dajalee on aurait fait un hôpital de dernière génération avec environ 80 milliards projet d'établissement boobu hôpital de Dantec am na ko depuis plus de cinq ans on ne peut pas trouver les finances or hôpital boo ko tabaxee c'est des milliers de personnes qui viennent là-bas chaque jour pour faju du alors que boo tabaxee stade wala arena ak lu mu baax baax danañ ko tëj des fois trois mois wala six mois kenn du ko utiliser avec tous les frais d'entretien que donc on a un problème d'arbitrage des priorités lan moo prioritaire par rapport aux autres wax naa santé wax naa éducation ak justice ak yeneen yoo xam ni moom moo yore dund askan wi waaw yooyu bu fekkee jëluñu xaalis bi def ko priorité def ci xaalis bi ci war par exemple bu ñu la nee santé pour mu dox il faut 500 milliards yow nga def ci 200 milliards wala 300 milliards tu ne régleras jamais les problème or actuellement li gën a bare ci li ñuy jànkoonte ci secteur stratégique yooyu mooy affaire u euh, xaalis bi ciy def boo ci deful xaalis bi ci war du marché donc état bi dañuy xaar mu def xaalis bi ci war aussi bien pour l'éducation pour la santé pour la justice ak yeneen service yi nga xam ne c'est des service fondamentaux pour les populations. ñu ñëwaatee euh, ci mbas mi nga xamante ne moom ñu lëmbee ci 2020 bi association consommateur nga nga nga jiite mais dañuy dégg toujours ñu naan euh, la faute incombe aux Sénégalais ndax respecté wuñu les mesures barrières toujours daal lañ ne dégg nañu docteur Xemes léegi mu ne lañ leen jàppale ñu respecter vraiment les mesures barrières est-ce que mais euh, dañoo gis ne il faut d'abord commencer euh, la la pédagogie par par l'exemple boo teree aussi dafay fekk aussi nga veiller à à tout ça mais soo génnee ci mbedd mi même les policiers qui sont santé qui sont censés euh, vraiment contrôler ñu gis ñu sol masque soo duggee si oto yi ñu sol masque le relâchement yéen nag loo jàpp ne moo tax sénégalais yi tey. dégluwuñu waaw question njiit la rek. Mm. parce que njiit yi aussi dañ dul joxe le bon exemple souvent. gis nañu ñu fiy tere ay. manifestation ay rassemblement te ñoom ñu di ko def di ci hmm. assister di ci bokk loolu gis nañ ko fi ba tey ñu teree ay rassemblement ñun au niveau de SOS bu ñu defee plateforme ak yeneen association yi pour xeex école privée yi doon laaj trois mois yoo xam ni kenn amelu leen ko ba ñu bëggee def manifestation dañ ñu ko tere te pourtant le même jour et même la veille gouvernement bi autorité yi bokk nañ ci ay rassemblement yu mel noonu donc di tere loo xam ne donc loolu comme ni nga ko waxee euh, njiit dafay joxe exemple bu ñu joxewul exemple ba pare bugg a tere du sotti ñaareel bi sanction yi nga xam ni moo war moom la ñu war a teg parce que aussi boo nee damay sensibiliser c'est bien mais danga war a yore aussi cravage pour ñi nga xam ni faalewuñu sensibilisation te loolu dañu bare Sénégal ñu ci bare xam nañ ni li ñuy def waruñu ko def buñ ko defee non seulement mën na leen lor ils sont inconscients il faut les protéger contre eux-mêmes mais dañuy lor nit ñi si des donc loolu état moo si war a jël ay sanctions exemplaires et sanctions exemplaires comme ni ñu ko yàggee wax du ay amande trois mille francs six mille francs waaye bu ñu ne ku solul masque am amende cinquante mille francs ñu téye la xam ne sa mbokk mais gis nañ France ay cent soixante quinze euros yu kenn xamul non seulement tu feras tout pour ñu bañ na jàpp donc di nga takk masque booy nelaw sax di nga takk masque parce que xam nañ bu ñu la nee cinquante mille francs ngay fay wala doo fi jóge say mbokk boo ko yorul ñu war a cotiser pour génne la fa dootoo ko def jamais te ku ko gis aussi dootu ko def donc loolu la ñuy wax sanction dissuasive. mais état bu ragalee pression nag. waaw mais état warul ragal boo xam ne bii euh, euh, dafa assumer ay responsabilités warul ragal jël ay mesures yoo xam ne c'est nécessaire à une situation te ñëpp xam nañ ni sénégalais yi alkaati la ñu ragal. tant que yaa ngi wax dañ la naan waaw waaw waaw danañ ko def me duñ ko def. mais bu Karawaas jógee nag. ana ana citoyenneté ana le sens patriotique. parce que tamit yooyu yëpp ay théorie la. waaw mais maître tamit maître maître policier yi. loolu ciy jël ku nekk tamit mu topp ci nit ku ne naan ko solal masque. ku ah, ko xool rek ci sa biir euh, entourage. di nga gis également am na si ñoo xamante ne des na. est-ce que foofu itam askan bi amuñu un rôle à jouer bañ xaar lépp rek ci kilifa yi. waaw xam nga bu fekkee ni askan wi ñi ci ëpp. comportement bi ñuy am baaxul ñi ci ëpp soit inconscience la wala maa tey la parce que looloo ci ëpp am na sax ñoo xam ne dañuy fanfaronné yore seen ki ak ñoo xam ni masque bi fii lañ ko def ci sikkim bi wala ñu dugal ko seen poche waaw bu ñu gisee alkaati jël ko sol wala bu ñuy dugg ci car euh, transport jël ko sol bu ñu duggee ba ci biir daal di koy dindi boo ñun daf leen di gêner waaw mais gêner lu oo xam daf lay gêner di la mu di la muccal ci feebar di muccal sa morom bi nga dendal mais kay gêne boobu jar na ko mais je di tant que sanction bu dissuasive amul loolu du arrêté nit ñi dañuy jeex rek bu ñu yàlla yërëmul woon euh, gis ngeen comportement yi nekk si mbedd mi c'est lourd de danger amul kenn kuy mucc ci ñun ci affaire yooyu donc il faut une sanction dissuasive te sanction ba lay dissuasive il faut mu il faut mu diis waxuñu nga jàpp nit ki tëj ko kaso mais am na façon boo xam boo ko tàppee dans le portefeuille wallaay dootu ko ñaareel du dootu ko sax gént dootu ko ñeme def sax ci gént voilà donc loolu la. wér-gu-yaram euh, am na solo mais da wax leneen itam mu di éducation. Ah. éducation moom duñu duñu sori ndax euh, dañuy gis déjà taxawaayu euh, syndicat d'enseignants yi. mais gis également mbas bi impact bi nga xamante ne nii am na ko ci ci ci njàng mi ñi ngi fi tudd tey ñu ngi wax ay yoon. naka la ñuy def ba école yooyu bu ñu fexee euh, fayloo parents yi leneen itam mooy ne euh, ñooñu itam dañoo soxla euh, njàppandal pour mën a doxal tamit këru liggéeykaay la ndax école. ñooñu mooy école privée. nekk waaw naka la ñuy def pour que parents yi bañ ci loru waaye it ñun comme ni ñu entamé at bi nga xamante ni ci la ñu jëm njàng mi mën a wëy te du sooxee ci ndongo yi. alors pour kenn bañ ci loru mooy nañ ko teg ci yoon nañ ko teg ci yoon mooy. yow da nga yore entreprise privée di liggéey di encaisser ay recettes di am ay charges. Mhm. li ngay liggéey mooy jàngale mais boo jàngalewul waroo fayeeku da ngay jàngale pour ñu fay la boo jàngalewul waroo fayeeku bu fekkee da ngay bëgg a fayeeku par force nag loolu jaay doole la foqati la te loolu moo am actuellement te état baa ngi koy seetaan te état waru ko seetaan warul wax parents d'élèves yi dem na ça c'est un manque de responsabilité des ministres qui ont en charge secteur là loolu wax nañ ko guddi wax nañ ko bëccëg état warul am yenn faiblesse yi état moom moo yore njàng mi bu lay wax naan dem leen devant les tribunaux wala dem leen waxtaan ba juboo loolu fuite de responsabilité la état bi moo jobote ñëpp privé entreprise privée yi dañ lay wax ni way ñun dañu am ay charge ba tey mm. wala suñu contrat bi contrat annuel la mais d'accord contrat annuel d'accord moi parent d'élève dama signé engagé ni dinaa fay année bi yëpp d'accord mais à condition que ngi jàngal ma année bi yëpp mais boo ma jàngalul amuloo droit fayeeku ma te même bu fekkee da nga ma fayeeku par abus man am naa droit bañ loolu la ñuy wax l'exception d'inexécution am naa droit ni man samay obligation du ma ko remplir tant que yow remplir loo sa obligation mais actuellement école privée li ñuy def c'est immoral c'est injuste teguñu ko fenn te forcé nañu parents d'élèves yi ñi ci ëpp ñu fay ñu nag suñu combat dañ koy continuer on a été reçu par une des autorités c'est le président de l'Assemblée nationale ñu ngi koy sant au passage recevoir na délégation plateforme bi nga xam ne ñoom ñooy xeex ci loolu parents d'élèves yi syndicat de parents association de parents d'élèves yi société civile ak association de consommateurs yenn yi donc ci loolu la ñu nekk demandé nañ audience chef de l'État ak ñeneen ak ak ministres yi nga xam ne sax ils sont concernés et qui sont inactifs ils agir waruñu ñu wax naan amuñu texte bu ñuy war a sukkandiku pour àtte. non non non wax lu ñu wax dañ ne nañu porter plainte. xam nga loolu jaaduwul yow yow yow père de famille nga nekk sa famille sa ñaari membre de ta famille jàppante mais doo leen ni dem leen euh, xeexi devant les tribunaux doo leen ni dem leen waxtaan ba juboo da nga leen di woo taaj leen ku ci newul ci dëgg nga ni ko diw yaa newul ci dëgg arrêté la. c'est ça qu'on attend de l'État un État responsable am na leen loo xamante ni comme ñu ngi ci njàngale mi ma ma bërëxal ko ci rek mooy euh, li ñu wax ne dañu dugal la question du genre dans le curricula euh, mu jur coow ci ci réew mi ñuy wax ne dañoo bëgg a dugal jàngal xale yi nag la ñuy sëyee euh, wàllu ngóor jigéen wàllu nga mën a choisir sa partenaire boo yaa xam jigéen nga ak jigéen wala góor ak góor loolu jur na coow yow yow ban jàngat nga def ci ci li fi UNESCO bëgg indi Euh, mën nañ ni dafa bare ñoo xam ne ñi euh, ay tubaab la ñoo ay kenn xam waaye ñun ñun ay sénégalais lañu te ay jullit lañu moo xam chrétien moo xam musulman ay jullit lañu ñun loolu suñu diine daf ko tere en aucun cas mënuñu ko accepter UNESCO bu leen neexee ñu doxal ko ci yeneen réew mais munuñu ko imposer réew yëpp te réewu Sénégal munu ko nangu ça si moo tax kilifa yëpp jóg nañu. kilifa aada kilifa diine ñëpp jóg nañu ñi wax ak ñi waxagul ñëpp parce que man fédération des maîtres coraniques fédération des associations de maîtres coraniques consulté nañ ma en tant que leur avocat wax naa leen que ñoom non seulement war nañ intervenir ci loolu mais am na benn tubaab bu ñuy jàpp ci fan yi euh, Louga. Mm-hmm. boo xam ne bi affaire pédophilie la doon def kooku aussi ñoom dañ ciy porter plainte donc euh, affaire bi nga wax affaire jàngale genre ak. ay dugal ci ay affaire góor jigéen nag loolu Sénégal mënuñu ko nangu kilifa aada yi duñ ko nangu kilifa diine yi duñ ko nangu te kilifa euh, état bi aussi waru ko nangu dégg nañ ministre bi li mu li mu ci wax nag mise au point bi mu ci def mais ñu ngi ñu ngi ñu ngi xool naka la affaire boobu di continuer mais en aucun cas ñun sénégalais yi mënuñu nangu loolu. maître dinañ ñëwaat si yow si euh, kanam dañuy dem euh, seetaan publicité bu ko defee ñu dellusiwaat. doogay commercial euh, maître maa ngi doon wax sànq discours à la nation bu chef de l'État fii metti moom ci at bi bëri secteur boo laal éducation santé transport euh, njàmbat li bëri na euh, tey ci consumériste bi nga xamante ne nii moom nga nekk lan ngay xaar ci discours président Macky Sall. comme d'habitude rek discours chef de l'État moom discours vële. du discours à la nation boo xam par exemple fête de l'indépendance mu def ay bilan yu mel noonu euh, discours de fin d'année kooku discours veule la ak peut-être wax quelques réalisations mm. mais du loo xam ne war na durer par exemple lu yàgg wala comme certains dul fa euh, li ñuy rafetlu d'abord mooy am na benn cadeau de fin d'année boo xam ne bi euh, population yi am nañ ko consommateurs yi am nañ ko mooy loi bi assemblée nationale votée il y a sur la protection des consommateurs les prix loi boobu depuis plus de dix ans ñu ngi koy xaar loi bi ñëw na voté nañ ko mais ñaari condition rek la mën a amalee njëriñ askan wi benn bi mooy décret d'application yi gaaw a génn te décret d'application yi projet yi am na ba pare donc li ci des waratul bare ñaareel bi mooy ñu def ci moyens yi ci war pour que ñu mën a appliquer loi boobu moyen yi mooy en ressources humaines en moyens Euh, matériel euh, équipement et cetera notamment ministère du commerce ministère du commerce ça doit être un grand ministère doté de grands moyens ñu ngi profiter ci occasion bi pour affaire loi boobu ñu wax féliciter ci une dame qui s'appelle madame mbay et monsieur Ousmane Mbaye aussi qui était le directeur du commerce intérieur mmh. ils ont beaucoup travaillé sur ce projet de loi avec les associations de consommateurs mmh. donc ñu ngi leen ci féliciter au passage que lii aboutissement la aboutissement lutte bu yàgg la di ci féliciter association de consommateurs yëpp xam ne ñoom it depuis plus de dix ans ñu ngi ciy wax Euh, donc loolu cadeau de fin d'année mais euh, sànq ci ci ci reportage bi maître euh, parce que aussi chaque 31 euh, décembre euh, la main tendue le dialogue euh, troisième mandat fekk Sénégal yaa ngi de am wax nañ ko léegi fii prix yi ci marché bi c'est exorbitant jën amul jën et devenu un luxe sur les licences de pêche aussi defe naa sus les faits sociétaux loolu la ñuy gën a xaar président mu wax askan wi ana lan la leen di jàppale ci seen dundi immigration clandestine gis nañ ko 2020 xale yëpp dee nañ ci géej gi yooyu moo am yooyu mooy euh, discours yoo xamante ni dafa yàlla askan bi ñu koy xaar euh, Binta xam nga yow analyste dëggantaan nga yow moom macha allah analyste nga te yàgg nañu suivre ces émission effectivement ni nga ko waxee loolu la président mën na wax wax yoo xam ni yu neex lay doon yoo xam ne askan wi danañ ci jële espoir Mm-hmm. parce que loolu aussi ci rolam la bokk jox espoir askan wi mais ñun li ñuy xaar mooy ay jëf nous attendons des actes de l'État parce que discours yi façon discours bu nekk wax nañ ko mais le mal il est profond et il est partout donc li ñuy xaar ci état bi mooy moyens yi nga xam ne am na ñu utiliser ko à bon escient yi nga xam ne secteur yu stratégique la ci dundu askan wi muy affaire ndox mi surtout ndox mi am na problème bu rëy dans le rural loolu jafe-jafe bu rëy la parce que Sénégal du rek dakaaru wala Thiès wala yooyu jafe-jafe bu rëy askan wi ci ci àll bi ñu ngi leen di lor que ça soit ci gestion ndox bi ak fourniture ndox bi que ça soit ci même courant bi parce que bu ñu demee bay fayeekuloo ay village villageois éclairage publique loolu musiba la parce que kenn ñemewul Dakar wala Thiès wala Touba wala feneen dans les grandes villes éclairage publique poto lampe yi. Mhm. nga bëgg wax euh, ña dëkk nañu cotiser pour fay ko. donc yooyu yëpp ay jafe-jafe la ay métit la yoo xam ñu ngi xaar président ci ay jëf et non pas ci ay discours loolu laa ci mën a wax. si l'immigration clandestine. loolu c'est un drame boo xam ne bii euh, pour régler ça il faut qu'il y une politique sous-régionale c'est-à-dire que état au niveau de l'UEMOA wala au niveau de la CEDEAO il faut que ñu am ay accords de partenariat avec l'Union européenne parce que immigration clandestine boobu c'est vers l'Union européenne. je ne peux pas comprendre que état yi benn état di discuter ak Union européenne alors que ñoom c'est état états 26 maintenant euh, ñoom ñuy discuter ak benn réew xam ñoo ko ëpp doole di ko imposer lu ne alors que on a des unions Euh, sous-régional ou régional yoo xam ñoom ñoo waroon discuter d'union à union waaw loolu faille bu rëy la mais immigration clandestine bi il faut beaucoup de sensibilisation pour xale yi mais il faut surtout leur donner du travail. Ah, justement il faut leur donner du travail. parce que góor dafa dafa war am fu mu góor. sinon du sotti on ne peut pas cultiver la vertu avec le ventre vide c'est pas possible donc dañuy ñaan état bi mu yokk ay pexem pour que gone yi am liggéey mais liggéey li ci jiitu mooy formation il faut une solide formation. professionnel généralement. Mhm. pour que nit ñi mën a tout de suite dem liggéey xam ne boo leen embauché wul sax ñoom dañ mën a amal seen xëyu bopp euh, par exemple les électriciens les mécaniciens les tôliers et cetera donc formation et surtout formation professionnelle de masse il faut des moyens il faut que état bi jël moyens yi def ko foofu mais ay budget yoo xam ni budget yu ndaw la euh, alors que population bi day augmenter tout le temps la jeunesse augmente le chômage de la jeunesse augmente mais boo xoolee jeunes yi ni ñuy chômeurs yi ñi ci ëpp. amuñu métier ça devient compliqué il faut ñu jàngal leen métier avant ñu nekk chômeur il vaut mieux être chômeur diplômé que d'être chômeur sans diplôme yow amoo métier pour wutal la liggéey dafay jafe. jërëjëf jërëjëf maître jërëjëf maître yor diplôme tamit te liggéeyoo am benn na waa mais moo tane moo tane yow amoo amoo métier <laughs> amoo métier pour wutal la liggéey dafa gën a jafe. alors que ki am métier déjà mi ngi chômé waaw mais ki am métier déjà mi ngi chômé mais massa ki nga xam ne amul métier jëf dëgg. jërëjëf jërëjëf maître Massokhna Kane euh, waxtaan bi am na solo ni mu ko waxee sànq ci kanam euh, di ngeen retrouver Chérif Diop euh, Souleymane Niang ci li nga xamante ne rek mooy discours bi gannaaw bu ñu ko defee njàngat leen ñoom seen bu ko defee ngeen ànd ak ñoom ñu wéyal waxtaan bi ak i seen i gan ju dem ànd ak waa régie ñu jox leen ñun dig daje ci fat yi rek incha allah di leen ñaanal feetu jàmm ak programme télévision Futurs Médias